wa ala alihi wa sahbihi dawi ridwani wa tamkin asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bokk yi fi teew yépp maa ngi nuyoo bu baax tey ziyaar di ko tàmbalee ci sama kilifa yi nga xam ne ñoo fi teew ci jataay bi ràññee nañ ci bu baax sëriñ Abdoul moom Cheikh Mouhamadul Fadel noo ngi koy nuyu bu baax di ko ziar noo ngi ci ràññee itam sëriñ Mahmoudan moom Cheikh Abdoul Ahad mi taxawoon fii léegi di wax moom itam noo ngi koy nuyu di nuyaare di ziare kilifa yëpp di ziare bokki taalibe yëpp di ziare itam sëriñ Bachiru moom sëriñ Xaadim Awa Ba mi nga xam ne moo woote bis bii di ko nuyu di ko ziar ak kilifa yi nga xam ne ñoo fi teew yëpp moo xam muy ci wàllu nguur moo xam muy ci wàllu diine ñoom ñëpp noo ngi leen di ziar bu baax te fàtte wu ñu itam délégation bi nga xam ne moo jóge ci Daaru Musti sëriñ Abbas ji njiital sëriñ Basiiru moom Cheikh Abdul Quddus fàttewuñu itam sëriñ a Kara Nooreeni mi ngi ci biir gis nañu itam sëñ Cheikh Touba Mbella ak rakkam ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar bu baax ci turu ak Cheikh Mouhamadul Mountakha Cheikh Mouhamadul Mountakha mi ngi am mbégte lool ci bis bii di bisu waajuram di bisu kilifaam waaye di bis boo xam ne doomam it moo ko woote moo ko taxaw mu am ci mbégte di ci sant bu baax. bis bi nag làmboo yu bare bari ndax ki nga xam ne moo tax ñu di ko def ak ki nga xam ne moom lañu ko tuddee ki tax ñu di ko def mooy Cheikh Mouhamadul Amir koo xam ne yoonu murid wépp defe naa ne xam nañu dara jaam xam nañu fi mu toll xëy na sax xam gi dëgg-dëgg xam du yomb ndax ni ko sëñ Moussa Ka misaale a sirul masu sirul masul nag koo xam ne yow lañu ko dénk du neex du yomb ñu xam sa mbir ba mu jeex tàkk waaye nag du tee ñu xam ci dara moom la ñu may sirul masul xar baax la feese ba ne góor bàyyi baa ko lam ci xarnu bi loolu la sëñ Moussa Ka seere ci moom dellu wax na rijaal yi xam nañ dara jaam bu nee jalañ ñuy safu jaam nërëm nërëm di safi baam mat naa ragal ci xarnu bi te sëñ Moussa Ka ci ron keppaaruk sëñ Touba la yaroo xam na yoon wi bu baax a baax dayoon na rek ñu ne sëñ Baara mooy kan ñu ne sëñ Baara kat kuréel bi sëñ Touba jëkk a mooy ki xam ne moo ñëw àndaale leen seen ngërëm ba noppi leeral leen leen seen mbir loolu dayoon na rek ci sëñ Baara ñu xam ne mooy kooku du jeex mukk ay mbiram du neex a wax ba mu jeex waaye ñu xam ne daal ki mu doon mooy doomi Sëñ Tuubaa joo xam ne Sëñ Tuubaa duy na ko ba mu fees def ci moom li mu war a def ci moom mu doxe fi it ni mu ci war a doxe ba yàlla dogal suñ borom woo ko ci boppam mu dellu ci diir mu gàtt ndax lim fi nekk bariwul boo ko seetee ci ñenn ñi waaye nag teewul lim fi def lépp yaatu na rëy na mat na na war a toll lépp toll na ci kon la waxoon rek nañu dolli ñaan ci barkeem ak darajaam yàlla dolli xewal ci réew mi dolli fi jàmm te dolli fi itam tiit mii nga xam ne moom lañuy tiit yàlla def mu génn ci réew mi te jeex fi tàkk te bañ a nekk fenn ci àdduna suñ boroom nasaxal ko te man na ko yàlla na ko def ki nga xam ne it moom la ñu ko tuddee di borom daarul mooti di maam Thierno kenn ku nekk xam na diggante ak nga xam ne doyoon na rek ñu ne moom la sëñ Touba tànnoon dénk ko taalibe yi dénk ko yoon wi te fekk booba mu ñuy fabu di tukki doyoon na rek ñu ne maam Thierno kat njabootu Sëriñ Tuubaa gi mu jëkk gis njëkk leen a teg bët moo leen yar moo leen jàngal moo leen tarbiyee ni nga xam ne noonu la ko Sëriñ Fallu waxe ne nun kat sunu bàyyi Thierno daf noo yar daf noo jàngal bañ na ar mu yar nu bañ na nër mu yeen wit bañ na jar doyoon na kon loolu moom bi nga xam ne Sëriñ Tuubaa moo ko yar jàngal ko tarbiyee ko wëlbatiku wóolu ko ci ak njabootam dénk ko ko dénk ko yoon wi dénk ko taalibe yëpp kon sëriñ bas ñu ngi lay gërëm def nga lu ko mate def nga lu rëy lu am solo waaye ñoom itam ñu leen sant ci teewaay bi ak ni ñu ko doxalee ni mu rafete nga xam ne kenn desul ñi fi teew mën nañoo teewal waxuma la waa Daaru Muxti waaye mën nañoo teewal yoonu murid fu mën a doon ci àdduna kon alhamdulilah ñi ngi nuyoo ñi ngi yóbbante nuyoo ci sëñ Abbas bu baax ak bu siyaar ngir di rafet bu teewaay bi nga xam ne moom lañu fi teew kon wax ji jërul guddal xamees na kuy sëñ baara xamees na kuy borom daal moxti xamees na cër bi mu am kon wax ji jërul guddal xanaa di sant sëñ Bas mi nga xam ne moo woote bis bi ngir jëmmi sëñ baara te yàgg koo woote nga xam ne waxtu nekk mu gën di ci am njàmbaar gën di ci am courage saa su nekk ba yëf yi dox ba agsi fii ñoo ngi koy jaajëfal di ko sant di ko gërëm di la xamal ne it sëñ bi mi sawet am na mbégte bu baax ci taxawal gi nga ko taxaw waaye am na mbégte bu baax itam ci bu ko mënoon teewal fii bi mu ko mënut itam luñ ci ñàkk-ñàkk solo lépp ñëw teewal ko fi ànd ak suñu yéene ànd ak suñuy xol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 mën a xam li nga xam ne